nit yaa ngi dox seen soxla waaye taxul ñu am xel mu dal li ko waral moo di événement 16 mars. mais damay ñëw mees ni sama jabar sama moyo mu ne ma ndax wóor na ngay dem mees Kër Massar ndax wóor na sama xel dalul waaw damay dem mees ma ñaan jàmm nit dellusi ba tey xel yaa ngi jiixi jaaxa. nekkuñu ci sécurité parce que lii bu amee rek saay-saay dañ ci dugg. ci suñu commerce bi nañu yaakaar. mais toujours problème heure bu ñu gisee rek ñu taal pëna rek dugal suñu bagage yi. ñi di ñaawlu ñàkk déggoo diggante opposition ak. lu tax ñu yegsi ba fii parce que pouvoir ak opposition mosuñu mënuñu déggoo dañu jëlante comme ñu ay ennemis ah buggantewuñu bu kii kii waxee parce que euh, opposition la nekk kenn du ko déglu kenn du ko boole ci dara mais normalul dañu war a booloo bokk liggéey. gannaaw événement mars fii ci banlieue bi jàmm dellusi